bismillaahi rahmaani rahiim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbax almulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inaa nasaluka xayra ma fi hada lyowm wa xayra ma baad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 muhammad sallallahu alayhi wa sallam mafqaratul insaaniya ci la gane jamono benn sëriñ moo ko tudde noonu sëriñ muhammad fatxalaa góolan walla góolan ci turki moo ko tudde noonu kon àggace nañ ci walla dëgmal nañ bés bi dugg nañ ci weer wi di weeru sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ci la gane jamono bu weer wi teroo xel yépp dem ci siira xel yépp dem ci siira te mooy xam-xam bi xamle kooku di muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax daa am nañ tuddee taarix am nañ tuddee siira taarix ci la yonente ba bokk waaye siira bokk ko kenn waaw ci waxin ulamaa yeeg udamaa yeeg bindkat yi ñépp jël seen xalima sëpp ci daa ji ndax bëgg bind ci kooku ñenn ña daal ko ñenn ña wesaral ko ñenn ña conférenceal ko ñenn ña causerie lépp ngir jàng ko ci wàll yi nga xam ne moom la am ndax moom anuurul xaalid mafxaratul insaaniya kenn daa munta jeexal léppam ku ne da nga jël aw lef rek wax ca say yëg-yëg wax ca say xam-xam waaye moom la kenn munta peeg peeg léppam loolu sunu borom waxoon ca boppam laa tuddikul absaaru waxoo yuddikul absaar loolu la ca xew ñu dëgmal bésam dugg ci aw weeram tabaarakallaahu ñëpp di ci wax ñëpp di ci bind moom nag mooy annabiyul mursal rahmatan lil aalamina rahmatan lil aalamina moom la ñu yónni muy yërmande nit ñëpp yërmande mbindeef yëpp ci bugg na yaatu ba ci fas yeeg xar yeeg nag yeeg bëy yi rahmatan lahum ba ci giléem yeeg mbaam yeeg fas yi rahmatul lahum ba ci kañ yeeg muus yeeg janax yi rahmatan ba ci picc yeeg njanaaw yeeg ndeng ment yi rahma lil alamina ñépp dugg ci biir ñépp dugg ci biir bëgg ci waxtaan yi ay joxoñ joxoñ yoo xam ne joxoñ rekk lay doon ishaara ña nga xam ne ñoo koy mën a yaatal ñu jéem a yaatal tom ci njëkk mooy alfajr al murtaqab mooy ñu ne ci guddi te yaa te yàkkamti bët set ñu ne ci guddi te yàkkamti bët set ndax guddi gu lëndëm ku ca nekk walla guddi jaaxle ku ca nekk te jàpp ne boo xëyee mën a seeti ña la ca tane guddi googu ku ci nekk yàkkamte nga bët set yàkkamte nga fajar jot waaw googu guddi moom àdduna si yépp a ci bokkoon nekk ñépp di yaakaar fajar gi feq fajar gi feqee ba set su bët setee ñu dem seeti doktoor bi bi man dara ci liñ fanaanoo waaw waaw tabaarakallah loolu lu amam solo la waaw moo tax bu bi fajar gi feqee rek nit ñi xaaruñu bët set ñépp sol seen dàll wuti ko ba mu des ñu néew ñoo xam ne xamuñu li xew waaw ñoo xam ne xamuñu li xew defe naa dégg ngeen bërki démb kilifa gële ca France kàddu yi mu yëkkati jëme ko ci al islaam wal muslimin wa nabiyihim ak la ca xew ginnaaw ga ak njàggalekat baag étudiant ya nga waxati ko rek ñun daal lu waaye wax ci yonent bi rek day tax nu gën koo bëgg ndax jàpp nañ ko may groupe jeex na lu ci waaye waxati ci moom day tax ñu gën koo bëgg rek waaw mbubbum waajaak muur gi ak bàyyi la ji mag gët ji waaw kon kooku nga xam ne moo ñëw ci fajar gi sunu boroom subhaanahu wa taala wane ne ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom mucc nañ ci wallazina kafaru amalum ka sarabin bi qiia yaxsabuha damaanu maa xata isa jaahu lam yajidu shay'a ñooñu mucc nañ ci ñi nga xam ne ñoom dañ koo weddi ne na seeni jëf moo ko seen njunux ñoo yem luy junux junux mooy koy dox ci tali bi digg bëccëg la ngay séen ca sa kanam mu niroo kom ndox waaw booy dox ci yoon da ngay jékki-jékki séen ca sa kanam lu mel ni ndox boo fa àggee doo fekk dara du du am ndox fajutu mar ña nga xam ne ñoo ko nangul nag mucc nañ ci loolu ñoom guddi googu nag aw ka zulumaatin fi baxrin lu ji yaxshaau mawj min fawqihi mawj min fawqihi sahaabun zulumaat sahaab zulumaatum baaduha fawqa baad ida axraj yadahu lam yakad yaraaha ci gudd googu la adduna si yépp nekkoon muy lëndëm goo xam ne dafa lëndëm ka ruus aw duus aw duus muur ko weneen duus muur ko aw niir ñëw muur leen nee lëndëm yooyu dana lëndëm lëndëmaay goo xam ne boo génnee sa loxo tuuti kon doo gis loxo bi boo dankoon dankub ceeb doo gis dank bi ci sa loxo bi waaw tabaarakallaahu loolu nag mooy fajar gi ñépp di xaar nit ñaa ci lëndëm gi benn torsu nekk fi nuurul xaalid làmp bi nga xam ne du fay mukk leer yañ fi leeraloon ca wàllu ñoom kisraag ñi mel ni ñoom leer yooya lañ taaloon tàkk na lu yàgg waaye déggatuñu ko waaye leer gii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy al nuurul xaalid du fay mukk bu ñépp àndoon di ko jéem a fay loolu daf koy yokkub leeraay bu ñépp àndoon di ko jéem a fay da koy yokkub leeraay ñi xam-xam nañ ko ña ko réere nar ko réere ba faw waaw waaw ñi xam-xam nañ ko ñoo ko réere nar ko réere ba faw alxuraan nee na laqad manna allahu ala almuminin id baasa fihim rasulan minhum min anfusihim yatluu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba walxikma allahu akbar borom bi nee na borom bi nee na xéewal na alal muminin xéewal na alal muminin ñi gëm yonent bi ña nga cay xéewal ñi gëm yonent bi am nañu xéewal waaw la si Cheikh ca gàmmoom gu neex ga inna min niamillaahi waaw laqad manna allahu ala almuminin lu leen yàlla defal lan la yàlla defal al muminuun id baasa fihim rasulan min anfusihim xéwal gi mooy mu yónni ci ñoom ab yónent bu bokk ci ñoom looloy xéwal gi mu yónni bokk ci ñoom walla mu yónni ab yónent bi gën ci ñoom ba mu ñëwee yatlu alayhim ayaati di leen firil cax-caxi yàlla yi waaw yatlu ayaati di leen firil caxi yàlla yi joxoñ yàlla yi nekk ci kaw suuf ndëxëñteef yi nekk ci kaw suuf wa yuzakkihim di leen yar bañ gën a yaru ñépp wa yuallimuhum di leen jàngal bañ raw ñëpp waaw lu koy xéwal la loolu xéwal dëgg la mbokk yi laaj yu jara taxaw a ngi nii su ma jumoon ma nga ca Ali Imran téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent laqad manna allahu ala almuminin lu mu leen defal is baasa fihim rasulan min anfusihim waaw luy ay taasam yatlu alayhim ayaatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum allahu akbar wa yuallimuhum nee na nu nee na xéewal gi almuminuuna ko moom yàll nay ñun yàll nay yéen almuminuuna yàll nay ñun yàll nay yéen ñu ubbi seen xol nu ubbi sunu xol jëriñoo xewal googu laqad man allahu ala almuminin lu mu leen defal is baasa fihim rasulan min anfusihim waaw tànn ci siin biir kenn yebal ko ci siin biir mu xam leen yërëm leen ñeewante leen bëgg leen ba mu ñëwee yatlu alayhim ayaati di leen firil cax yi concept yi waaw concept yi la la la yuusufa waxoon waaw waaw tabarkalla rabbi qad aatitni min al wa allamtani min taawil al concept yi ndax àdduna ñi xam concept yi je pense que nun la professeur ñi xam li yëf yi di fireeg li muy tekki toujours ñooy raw ñu ko xamut waaw toujours ñooy raw ñu ko xamut ku am kilifa gu mel nii benn leadership boo xam ne bi ñépp moo leen raw malheureusement ñu def ko yónnantu barkeelu du ñu dugg lenn balaaj ko ci xalaatam du sunu pénc mukk du suñuy doxalin te di ko fott sol rek di ko tudde suñuy doom te mu raw ñëpp nekk leadership buñ ko déggalee mu tag ñu ci yoon woo xam ne kenn du ñu dab te ku ne sunu kanam ñu dab la malheureusement laqad manna allahu ala almuminin waaw ay googu xewal googu xewal kañ lañ koy xam bu gàmm ñëwee rek weer wi tabarkàlla ñoog moom ñoog moom bu weer wa jeex ñu laf ba diwén diggante ren ak déwén ko fi laaj wàllu économie xeeb nañ ko ci wàllu social xeeb nañ ko ci wàllu politique xeeb nañ ko ci wàllu environnement xeeb nañ ko ci wàllu bokk gi xeeb nañ ko ci éducation bi xeeb nañ ko ci ci lépp lañ ko xeeb doog sunu bopp parce que nous sommes laïcs laqad manna allahu ala al muminin ay gi xéwal ndeysaan waaw wër gi Abbas Sall waaw radiyallaahu taala anhu mu ne cay gi xéwal individualité gi nekk ci imaan gi ku ci nekk gis nga lam la defal waaye bu pinc mi booloo woon gëm ko dox ci gannaawam nag xewal gi def ca lay raweeti isbaasa fihim rasulan min fusi waaw loolu la jaafar tontu woon na jaashi ca seen tukki bu rëy bi xam na nu ko xam na nu ndeyam xam na nu bàyyam hmm? mu ne ko maa la ko wax mook moom ba najaasi ndeysaan ronga ña di tuuru yonent boobu yatlu alayhim ayaati ma ne concept yi ni ci àdduna waaw loolu la ko ñoom professeur ji bi di tuddee lëgg-lëgg yeeg yu deme lu jóg yonent baa ca raw ñëpp waaw wayu zakkihim mu di leen yar yar téeméeri junniy nit ak ñaar fukki junniy nit ak ñeenti junni ci ay nit diggante aw góor ko jigéen defe naa léeg-léeg ci suñu jotaay mag sëñ Mbàkke albidaaya léeg-léeg ngeen dégg ci guddi gi lu ñu tuddee rijaalun xawla rasul wala mboolo mu ñu tuddee nisaaun xawla rasul ñi lay aw góor lañ ñi aw jigéen lañ booleen boole ñoom ñëpp ñuy téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni aay mbokk yi boo àdduna amaatoon ku ñu man loolu <laughs> ne ni yaakaaruma ko ndax lam yabdu waaye daal hmm, wayu wayu zakkihim mu di leen yar ak mën yar yar téeméeri junniy nit ñaar fukki junniy nit ak ñeenti junniy nit mu yar leen gàcce ngaalaamaa moom waaw gàcce ngaalaamaa yow salla aleyka allahu ya alamal huda wa yuallimuhum Oustaz Ahmed Dame Ndiaye nee na laay yu mel nii ci alquran mat na ñett ñaari yépp wa yuzakkihim mooy jiitu benn ba rek moo jiital wa yuallimuhum mu ne loolu moo lay xamal ne tarbiya éducation yitte gi ko alxuraan jox joxu ko leneen lu dul moom ndax jàngale ak yara fi nekk nee na laay ñëw ñetti ñetti yoon ñaari jiital ja tarbiya benn ba moo jiital taalim te mooy jàngale enseignement et éducation lu mu leen di jàngal alkitaaba wal xikma allahu am na ñu ne alkitaab mooy alquran alxikma mooy sunna mën naa nekk waaw ndax xikma koo ci xam ne jàngal nañ la ko les grandes lignes nga xam ca la nga ca xam ci wàllu ay complémentaire yor nga lu rëy waaw nga lu rëy moom la falaasa yi doon xëy di ko wër alxikma moom la falaasafa yi xëy di ko nekkoon xëy wër ñoom Farabi ak Ibnu Arabi tabarkal la ñi mel ni ñoom ba ci tubaab yi waaw moom la ñuy moom lañ xëy di wër léeg-léeg nit wër ba dajeek moom yéppam baax léeg-léeg nit wër ba ay bokkam jéppi ko ci dara du baax ndax lan fa mu koy wëri ji daa nekkut foofu waaw mu ngi mel ni ko dem Casamance di wëru fas <laughs> waaw ngeen baal ma ci misaal mi waaw boo bëggee gëléem àggal àggal Mauritanie wër ko yomb la waaw yàlla nu yàlla dimbali def jàmm ci réew mi réew yi ko wër mbokk yi ahdul muslim li tax nit ñi soxla fajar gi àdduna si yépp toog di xaar fajar gi àdduna lëndëmoon àdduna moo lëndëmoon këruus torche bi koy nit amut kiy indi torse bi ñëwagut te ñu yoroon torse ya dem nañu te ba demeek léegi yàgg na al anbiyaa wal mursaluuna ñoo yoroon tors bi torse baa ngi tudd sharia walla ash la torse bi tudd waaw kiy yor tors bi tudd nabi walla rasul ñu toog jamono ju yàgg kenn ci ñoom ñëwul te ña fi nekkoon dem nañu àdduna lëndëm këruus nag lëndëm këruus ñëpp nag di xaar fajar gi waaw ngi mel ni tey courant bu coupé ci dëkk bi yàlla tere waaw yàlla tere <laughs> waaw monsieur le directeur yàlla tere waaye coupure yooyu bu ko defee ci guddi gi ñëpp a yàkkam dafa jar jot wala bët set ndax nit ñi génn ci lëndëm gi waaye lëndëmug àdduna moo rawoon courant bu kuppe lëndëmug àdduna moo rawoon courant bu kuppe waaw moo tax keroog ba njool mag jëlee bagaasam jël saagam def yi mu war a faje sol tëneem jël ay nattukaayam départ ne cëpp sunu borom ne laqad jaakum allahu akbar dikk na waaw fajar gi ngeen doon yàkkamti yéen ñépp di ko xaar fajar gi ki yor torche bi agsi na laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufu rahim fa tawallaw yéen a xam fa tawallaw yéen a xam waaw allahu akbar mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot fajar gi ma nekkoon kon ñépp yàkkamti woon mu fekk ndax dañoo ne ci lëndëm gu tar koo xam ne kenn xamul fooy teg sa tànk kenn xamul fooy wër sa wet kenn xamul fooy jëlee doggu mburu kenn xamul fooy amee jàmm ju ko xàmp àdduna nekk ruus ñu jékki-jékki rabiul ñëw muy weeru gàmm sunu sunu sunu sunu yonent ba yaayam amina baayam abdallah am ko ba mu juddoo ahmed sawxi ma mën a way walla bokk ca ña mën a ne ko wulidal huda fal kainaatu diyaaw ndeysaan wa famu zamani ha ah, tabassumun ndeysaan wa thanaaw tabaarakallahu lu am solo la yàlla nañ ko dégg ngeen dégg ko ñëwam ngoogu mbokk yi teg leen seen baaram foofu ñaan suñu borom a ñu dund ba suba te weesu ko bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 nu àndu seen jotaay yi nga xam ne day am lundi di am mardi di tàmbali 8 di jeex 10 heures 8 heures lay tàmbali 10 heures lay jeex lundi lay am ak mardi. jërë ngeen jëf ak seen fi war a jotaay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi mu ngi nii taxaw yor seen i këyit bëgg la na firim fàncel xibaar toi firim ko ci wàllu ñaan leen ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bii di c 3 ngi ci région yëpp yi muy jaay du xumaag te itam yu baax la te gars yi nee nañ ginnaaw moo sponsorisé émission bi saa bu ñu xëyee lu ñuy wuti ci ñoom lañu koy wuti yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu